nga legi jox la fit ci lu bon dañ la koy jox comme qualité bu bax li shaytané waxon adama moy lan lay waxon hal adullukum ala shajarati alxuldi wa mulkin la yabla moy bum len di tektal di len nax ci li nga xamantene moy yàlla la daf ko sopil tour jox ko tour bo xamne tour bu rafet la motax yàlla ne fadallahuma bi ghurur fadallahuma bi ghurur moy shaytané chaque fois non lay def day ñëw fekk lu ñaaw mu tuddee ko jox ko boo xam ne bu rafet la jox ko tur boo xam ne bu rafet la voilà boo fi nekk di wax ay valeur ñu ne loolu ay cliché la ay stéréotype la yoo xamante ni yu nit ñi di xel mbir la a mais amul lenn lu ko nit ñi amul lu ko nit ñi dañu a nit ñi décomplexé waaw def liñ bëgg def daal def liñ bëgg def même ci sexualité léegi théorie bi nga xam li ñuy wax sexe boo xamante ni bu biologique la ak boo xam ne bu social la ak boo xamante ni bu bu bu psychologique la ñoom dañuy wax ne doomu aadama ñett yooyu moo mën a am ci moom mu ne góor la ndax moom dafa juddu yor jëmmu góor wala daf ne góor la ndax société bi góor la ko jàppee wala moom góor la ndax moom ci biir boppam góor la jàppee boppam. léegi li ñuy li ñuy théoriser ci Occident tey di ci yar nit ñi mooy bi ngay jàpp sa bopp boobu mooy bi bi bi bi bi bi nekk bi nekk mooy bi bi bi wér. bi ci wér ci ñetti sexe yooyu mooy bi nga xam ne bu psychologique bi la mooy li nga jàpp sa bopp na yow loolu nga doon yow loolu nga doon waaw même bu fekkee sa jëmm leneen la loolu du problème voilà léegi loolu boo ci yaree ay xale depuis bi ñu nekkee xale nga leen di boole ñuy fo nga ni leen doo leen séparé ci fo yi ñoo war a bokk li ñuy foyee góor ak jigéen parce que nekkaguñu dara dañoo a nekkaguñu dara mooy tànnaguñu lan la ñuy doon tànnaguñu ndax ay góor la ñuy doon wala ay jigéen la ñuy doon kon waruñ leen a ñun tànnal mooy yow waajur bi dañ lay tere nga tànnal sa doom lan la war a doon waroo ñëw imposé ko ne ko góor nga war a doon wala jigéen nga war a doon da nga ko war a bàyyi bu màggee mu tànnal boppam mooy li ñuy wax ci la théorie des genres léegi loolu bu ñu ci yare suñuy nit fan lañ jëm te loolu ñi ngi ci loolu ñi ngi ci bu fekkonte ni rek ci ay niveau wu ay état la yem mu tane mais xamal ne ci yenn instance ak yenn organisme yu mag yi nga xam ne yu mondial la ay mondialiste sax laay wax ñi ngi ñi ngi maanaam lu mel noonu ñoom loolu lañ fay bind di ko wéyal ci dëkk yi li ci ki ma ci mooy lu mel ne OMS moy mooy ay mbir yo xam ñu ngi ko bind teural ko mu nek ay plan yu ñu tek pour jaarale ci suñu société yi ci wàllu ñu tuddee l' sexuelle des enfants liñ ci bind ak liñ ci nas ci suuf diko ko ci lu bari ci ñun yëguñu ko voilà mais bis buñ bis buñ démé ba seen pexé yooyu ci nit ñi addu liñ liñ ci bëgg ci objectif ñu am ko moy moy destruction de la race humaine moy doomu adama ci boppam dañ koy yàq ay bayima ñoo fi nek mais li taxone nit nek nit mom day dañ ci mom té lolu ci lañ jëm té bo xolé ay nit ñoo xamné ay ay kat ci Occident bindoon nañ ci wax ci ci né li ñuy tuddee civilisation moderne bi ni fi mu jëmale nit ñi moy vider len ci li nga xamante ni bi moy essence su doomu adama bu ñu wax doomu adama li taxa nek doomu adama mu dindi ko ci mom def ko benn nit ku ñak solo benn bayima bo boo xam dañ koy note diko jëmele fu fu len neex loolu la ñeneen ñu doon tuddé li ñuy tuddee la la dictature euh technologique wala euh, li ñuy tuddee le politiquement correct boo seetloo ko ni nga gis ne yi nga xam ne mooy yàq jikko yi bi ci njëkk booy njëkk a tudd mooy bi ñu ñëwee nax nit ñi ba jëlee leen ci diine même bu dee sax diine ji am na lu ci yàqu lu mel na nga ni diine yi boo xam ne diine ahlu kitaab yi bu fekkee dundee nañ ko sax dundin boo xam ne bu jaadu la am na lu muy def ci nit ba léegi ci yenn valeur yoo xam ne dina ko def ci nit mais même loolu xeex nañ ko ba la ca desoon a kës néew ci seen diine yooyu nekkoon ci nit ñi xeex nañ ko ba ba dindi ko complètement seen église bi daf nekk nii rek d'une manière symbolique mais amatul ben ben emprise ci société bi amatul ben influence ci nit ñi bu jógee di condamné sax euh, préservatif yi nga xam dañ koy wax parce que ñoom dañ ko dañ contre ak yenn yi nga xamante ne dañ koy def ci affaire ay ngóor jigéen ak yoyu gaay yi ne leen tëj leen seen gémmiñ amo leen la ngeen di wax buñ ñu ñu génnee leen ay scandale affaire pédophilie yi wax ci seen prêtre ak yoyu médias yi commencé diko ko pour noppiloo leen chaque fois yoyu la jëfëndiko newal nañ leen doole ba fi amatuñu luñ la def bon na bu ko def rek pour point de vue am ci liy xew ci mais la concerné moom ak Vatican ak xëy na ko déggal mais société yi ñoom seen société yi seen i nit déglootuñu ay njiitu diine wala mu di wax bon te loolu la ne fañ ko ba nekkul loo xam ne àdduna moo dox nii rek àgg ci mais ay nit ñoo ko ñoo ko xeex fexe ba liquider complètement église bi ba dootul amati benn influence ci nit ñi ñu rey ko euh, te loolu mi ngi tàmbalee ci seen république yi ñu tabax li ñu tuddee seen république bi république moderne bi ñu tabax nii boo xoolee bi ñu fa jëlee seen royaume bi indi république bi ci dix-huitième siècle bi mën nga wax ne foofu la seen lu mel noonu tàmbalee kon bi ñu doxee diggante nit ñi ak diine diggante nit ñi ak seen boroom fexe ba euh, dindi lépp loo xam ni mbiru yàlla la ak mbiru diine la ci bopp nit ñi xam leen ne kiy jël diineem dundam di ko tënk ci diine kooku fondamentaliste la kooku intégriste la kooku nangam la jox ko jikko maanaam melokaan bu ñaaw nit ki moom ñu yar ko ci laïcité laïcité mooy moom mu nekk laïc nangoo nekk laïc mooy nit koo xam ne du nu ci diine mais loolu du woon yoon jullit ñëpp nit yàlla bëgg ci ñoom ñu mel ko benn melokaan la mooy ñu nekk ay jaami yàlla nekk ay nit ñoo xam ni lislaam moo leen di mooñ sibghatallah wa man ahsanu min allahi sibgha maanaam ngeen jël li nga xamante ni mooy mooñ bi leen yàlla mooñ ak couleur bi leen yàlla couleur couleur ngeen mel noonu ñëpp ñoo ci war a yem société bi yëpp xëy na nit ñi mënuñ tolloo xëy na naam góorgóorlu ci lislaam ak xam-xam ak niveau mais nekk ay nit yi diine moom di jëfe sa diine loolu jullit bépp jullit yëpp ko war a mel léegi nag yar nañ ñi yar boo xam ne dañu leen gëm loo ne nit dangay nekk nit ku simple nii nekk un laïc boo xam ne doo tënku ci diine léegi loolu foofu la problème bi jóge moo tax léegi boo gisee suñu société yi suñu génération yu bees yi seen yittewoo wàllu diine taxu koo demee noonu lu dul ko ci yàlla baaxee nga dem ba jamono xëy na sa xel jël si waat nga commencé di bëgg sa diine di gëstu ak di jàng mais ñëpp ci ñoom yooyu intéressé wu leen boolewuñ ko seen programme te koo ci wax ne ko doo jullit mu xeex ak yow koo ci wax ne ko doo jullit mu xeex ak yow kon ay jullit lañ mënoo leen génne ci lislaam waaye ay jullit yu réere seen diine lañ ay jullit yu sàgganti seen diine lañ jubluwaay bi ñu war a am ci lislaam nekkul ci ñoom loolu am na am na lu bëri lu ko def kon sori di sori diine ñàkk koo jàng ñàkk koo jëfe mu leer ci bopp nit ñu koy pratiquer loolu mën nga wax ne mooy cosaanu yàqub jikko yi